Nous fait T8 en tant que président du réseau des élus locaux nga avons lancé monter en puissance parce que collectivité locale collectivité territoriale nous am solo ci euh, autorité gouvernementale ci base bi lañ koy développer mu ce mais c'est pas le contraire fii rek loolu xamuñu ko rek développement du am te lii tee développement à la base mooy collectivité territoriale mooy décentralisation bu mat te loolu amagut ndax bu décentralisation bi matoon du ma ñëw fii ñu naan ma commune de Sud mi ngi xeex pour am 2 milliards de budget fii waroon naa fi ñëw ñu ne ma commune bi 15 milliards ou 20 milliards de budget décentralisation pour matadi mooy andi loolu collectivités territoriales mat 558 ou 557 ci Sénégal lu bokkul ak ville yi dafay jaadu ñu am lu leen di fu association des maires du Sénégal mu mel ni lay problème mu collectivité territoriale yi dëgg dëgg dëgg doo ci dégg association boobu démb dégg ngeen réseau des élus locaux génne communiqué ci li xew ci mairie yi ñaata weer a ngi nii agent yi di grève mais mu mel ni grève amul ci Sénégal kenn fulalu leen ñaata weer agent municipaux yi di grève ci mauvais traitement bi nga xam ne moom la leen nguur bi teg tey mu am impact bu négatif ci fonctionnement mairie yi ndax bëri na lu nit di soxla di aajowoo mairie la koy uti bëri na kayit bu nit di soxla mairie la koy uti waaye bu ñu toogee ba ñu ne ay weer yi weer agent yaa ngi grève léeg-léeg ñu mën a def ñaari fan léeg ñeenti fan bi mujj bi sax ñeenti fan la ça veut dire que ci semaine bi benn fan lañu liggéey mu mel ni yéegaluñ ko seen bopp bu doon association bi fi nekk di représenter mairie yi mat na lañ ko doyee dossier boobu la ko waroon a jël te réseau des élus locaux dina ko jël dina ci taxaw moo tax ñu génnee communiqué bi ñu génne barki démb waaye ñu xool parce que léeg-léeg nit ñi duñu xam ni sax pouvoir yi ñu jox maire dépassé na acte 3 de la décentralisation boo demee code de l'urbanisme maire am na ci ay pouvoir boo demee code de l'assainissement am na ko ci code de l'environnement am na ko ci boo demee loi de l'économie sociale et solidaire sur la loi sur le financement des petites et moyennes entreprises mais les acte 3. avec nouveau type de maire bi un nouveau type de président du conseil départemental réseau bi dina d'ailleurs expérience